mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat fii ci ndimbal suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax ci 30 minutes chrono ngeen koy dund ak ñun ci solution info TV tey jii ñu dellu si waat ginnaaw ba nuyoo lay jàlloo moo Modou Diouf ak Abdou Top Fallou ak ñi nekk ci région bi yëpp euh, di gërëm ñëpp di leen sant di balu ak ñëpp dellu si rek ci actualité bi ni ñu koy defee de façon ramassée ci semaine bu ne. tey jii ñu fas yéene ñëw ci ay ponk yu wute dinañ ñëw ci procès en diffamation yi ñuy wax ci réew mi ni Mimi Touré ak Mansour Faye mais aussi ma jàmbal ak Dame ak li jëm ci arrestation bu Amath Suzanne Camara waaye tamit nomination yiñ fi mujj dégg ak polémique yu mu jur dinañ ci dikk boo gisee ci titre bi ñu def euh, le Sénégal chronique d'un piage organisé loolu buñ ko waxee xel am na fu mu war a jëm parce que dafa am ci atum 2012 wala balaa 2012 bi Abdoulaye Wade di nekk ci réew mi Abdou Latif Coulibaly bindoon ab livre tuddee ko la Lonase chronique d'un piage organisé mooy ni ñu yore woon këru yoote wala wure gi wala këru carte gi ñu doon wax Lonase te ki ñuy wax bay la woon yoroon ko ti ni Lonase doon doxee nekk une vache maanaam nag woo xam ne rattukaayu nguur yi la pour ñu fi am liquidité mais aussi seeni ñoñ ñu mën di leen jox koppar ngir mën di doxal waaye façon ba nga ko doon defee rafetul maanaam ab nar la woon rek. bii bukki bi njur bi sàmba loolu bay la wan ñu tëj ko ci kaso bi est-ce que xam nga ni wan ñu tëj ko ci kaso bi waaye Macky Sall après moo ko génne après ci la créé benn kuréel bu ñuy wax les amis de Macky Sall mouvement boobu moo ko jiitee ba ni Macky daanoo loolu tax bi ñuy wax impunité ci Macky Sall lañ ko gënoon a ràññee mais Abdoulaye Wade lu mu deedee bi nguuram di jeex ku ci mel ne Modou Ba Diop Azer ak Baylawan jàppoon nañ leen loolu tax coowal LONASE gii ñuy wax naan ay convention yu ñu ñoo xam ne war ñoon jot ci copparte Toussaint Manga génnee ko LONASE loolu du fa bees ci atum 2000 am na ku ñu doon wax Abdou Aziz Tall Abdou Aziz Tall moo jiitoon bom bureau organisation et méthode doon boroom xam-xam bu rëy mais jiite woon LONASE bi Ablaye Wade falo bi ñu defee ay audit wala boog ñu saytu LONASE gis ni Abdou Aziz moo doon financer les campagnes ji parti socialiste ñu ne xaalis bi ñu doon financer les campagnes ji parti socialiste fa la jugee ñu ne. mi ngi doon jugal LONASE parce que LONASE am liquidité mooy xaalis boo xam ne du am trace du doon chèque du jaar ci banque du mais liquidité lay doon goo xam ne heure bu ko nguur soxlaa ñu génnee ko defal ko ko noonu tey lañ jàppe ku ñuy wax mbay Diouf mbay Diouf jiite woon SNCF te dëkk Thiès moom la même chose mais yooyu yëpp après am na ñu koy méngale ak politique comme boobu libéraux yi mere nañu socialiste yi danoo jàpp ni képp ku doon financé par socialiste war na la mën a teg daan parce que bu dee Mbaye Diouf Idrissa Seck gënoon naa bëgg am doole Thiès loolu tax des fois arrestation yi aussi politique mën na ci lalu ci lu bari pour wax leen rek Sénégal yu bari da koy wax tey mais beesul ay Lonase ay Sotrac Dakar Dem Dikk yaa Dakar Dem Dikk lool loolu fi doon wax ay jamonoy Christian Salve ak Farba Senghor ak ñooñu ba tey ak yeneen société yoo xam ne ñi ngi ci réew mi lu ci mel ne port autonome de Dakar lu ci mel ne kuddu wala leneen amul benn société boo xam ne nguur da ko yor ci yu mel noonu port rek yéen a ngi fàttaliku jamonoy euh, Cheikh Kanté duñ ci dellu si ak euh, yeneen ak yeneen kuddu Cheikh Omar Anne mi ak livre bi Pape Alé bindoon ci moom ba yoon am ci loxo ñu dem OFNAC ak ñoomin seen yooyu yëpp xew fi ba tey jii dafa nekk d'actualité mais on a tendance di fàtte loolu tax ñun suñu suñu niti politique yàpp ñu mooy jan na sénégalais yi danoo amnésique amnésique mooy danoo gaaw fàtte maanaam li reere dem boo xëyee laaj leen ko sax ñu ne fàtte nañ ko moo nit mun na def lu ne maanaam dugg ci euh, mandi tiir wala huile pare génn mel na ku mësul def dara maanaam nit day def lu la weng li sëriñ euh, sëriñu Ablaye Diallo doon wax sëriñ Moustapha ñu ne sàcc ndënd yomb na waaye fan ko tëggee moo jafe mun a Sénégal nit day sàcc ndënd ba noppi ñëw sa buntu kër léegi du ko tëgg nit da daan sàcc ndëng du ko mën a tëgg mais léegi ci sàcc muy tëgg parce que bu nee convention yi xew ca LONASE ñu ko doon jox ay nit ñu ne yéen nit lañ ko jox parce que bu ñuy wax convention waxuñoo ko sur le plan politique dañ ne l'ONAS wala ministère El Malick wala keneen ak keneen ñoom dañoo bëgg ku leen accompagner dans le domaine de la communication ñu ne communication boobu da leen ci war a accompagner ñu yaakaar ni solution TV gii ñu nee ñun maanaam abone yi bari na am na visibilité émission Jomet Taku Show 30 minutes chrono wala focus wala leneen ak leneen ñoom daya ñoom ñëpp ñu jàpp ni loo fi jaay wala loo fi wane nit ñi dinañ ko gis ministère bi soxla visibilité soxla ku ko accompagner ci ay activités am léegi LONASE ne léegi ngir ñu mën a jàppale ci loolu parce que LONASE aussi promotion lay def communication lay def parce que moom loolooy dundal liggéeyam boo xoolee li ëpp ci liggéey LONASE dañoo war di def publicité pour nit ñi di yëg parce que ñoom li ñuy def dafa nekk en rapport direct ak nit ñi ma loolu tax kon il faut que nit ñi di yëg ñu ne jox nañ ko ay médias mais médias yooyu ñu doon wax. du ma tudd tur mais Maty Trois Pommes moo génn tontu Maty Trois Pommes ban visibilité la am ak lan la liggéeyal Lonase ci communication ba tax nit ñi mën a naw Lonase mën ko seetaan pour mën a doxal mbiri Lonase lu dul ni Maty Trois Pommes benn jamono dañ ko doon dégg mii défendre Ousmane Sonko ba si àgg mu jekki-jekki wëlbatiku kenn xamul lu xew ñu jékki-jékki gis benn mam ngor jasaaka jékki-jékki gis maanaam ay seen yoo xam ne xamoo sax seenu luñ doon jékki-jékki gis benn Serigne Moustapha Moustapha jaxate ibbi ab maison de presse te xamul dara ci presse ngay gis di gis gis nit ñi yéemu ci ñi nii seen presse yi lan lañ ko créer wala ñu gis ab nit génnee journal journal bi du li ñuy jaay ci mbedd mi sax mais mode PDF la bu xëyee ñu ngi koy revue de mais nit ñi yéemu ci journal yi lan moo nekk ci seen ginnaaw lan moo nekk ci seen lii léegi nag lan doon nëbb li nekkoon seen ginnaaw moom la Toussaint Manga génnee mooy bu doon Lonase la ñuy liggéeyal di ko defal promotion di ko defal publicité ñu mën a comprendre parce que média loolu lay dundee mais saaga son ko xas Ousmane Sonko maanaam fekk ay fen ñu ko doon tabax pour mu nekk dëgg ñoom Madiambal ak ñoom ñëpp ko du jeex loolu nag la Toussaint. fésal mais bu doon ni rek ku mel ne wal fajri xam ne day def liggéeyam day def communication yor service commercial kayit yu war yépp mu am ko mais kooku boo ko joxee convention pour nga liggéey sur le plan commercial mais noonu la koy def ak ñëpp da koy def normalement jàll dem yoonam mais nga gis koo xam ne nee na maison de presse la yor te moom dong mooy maison de presse bi moom dong Maître Wapom wax nan woon ñaari ñaar wala ñett nit yu muy liggéeyal amul. kon dañuy xam lan moo nekk ci ginnaawu chargé bi ñu doon chargé Ousmane Sonko ak saaga yu ñu doon saaga Ousmane Sonko dem ba yenn presse yi amoon crédibilité ci réew mi ñëpp nawoon leen ñu dem ba jël seen leer jaay seen leer jëndee ko lëndëm mais xaalis sa nekkoon ci ginnaaw LONASE moo génn wax xam na ñu bari boo déggee convention yi ay millions da nga naan maison de presse la lay doyee million mais bu dee ni yow danga am 30 millions ci LONASE ah mi ngi mel ne leeral TV ñoo fi jëloon Adji Sarr di ko defal promotion nga jëlee trente million ci Lonase dem port am fa 30 million dem kudd am fa 30 millions dem ministère sàngam fu ne nga mën fa cof 30 millions mais ci at mi ñaata nga mën a retrouver wu ci xaalis kon ñi ngi doog a xam lu tax yenn maison de presse yi nu doon wax naan ñii parce que bu dee journal booy jaaye ñaar fukk rek journal boobu mun la dundal mun la yor kon tey jii xeex bi yenn médias yi doon xeex ak Ousmane Sonko di xeex pour projet bi bañ a taxaw ñu ngi doog a xam lan moo nekk ci ginnaaw léegi nag félicité ko Toussaint Manga pour courage bi mu am parce que yenn nit yi ni doon soppeekoo ci réew mi ak ni doon wëlbatikoo dafa doy waar te ni ko Toussaint defee noonu la ko ñëpp war a defee. waa Waly Diouf Bodian bu dee am na lu mel ni lu nekk port na koo feeñal. bu dee am na lu nekkut na nga ko feeñal leneen ak leneen pour que ñu xam ne lii la parce que tamit dafa jot que ñii di lappi lappi ñu wal leen ni lii ngeen fi def loolu tax loolu dafa am solo parce que nag xaalisu Sénégal sénégalais ko moom waaye ñi ko war a jël ñoo ko war a jël mais organes yi ñu tudd liste bi ma gis ñooñu lan la ñu ëppalee. ñenn ñi ba mu mën a ngardaa ngardaayoo lenn rek lañ ko daan jariñoo mooy danoo jege président Macky Sall lim Sall buloo yi mu bëggoon ñi ngi ko koy defal ñu bari ñu ngi koy defal man dama doon présenté revue de presse daan naa déglu revue de presse ba si yàgg ma yéemu ma ne lii de bokkul ak li ma xam du lox information du la jox benn xibaar ci ay nit la ñuy ne bu ñu xasul Ousmane ko ñu ngi tagg keneen ci koo xam ne maanaam di def revue de presse mais di géwalu quoi. doo xam lu nekk ci ginnaaw mais am na ci des présentateurs de revue de presse yoo xam nekk loolu lañ daan dundee aussi da nga daan gis benn ministère wala benn directeur man am na directeur bu ma xam dafa mujj ñiy wax ci lamb revue de presse yi maanaam ay kaas sax bu koy maye kaas sax dinañ ko revue de presse après nag da léegi nag li Toussaint def moo tax ñu comprendre parce que on se posait des lan moo xew te li Toussaint wax nii man yàgg naa ci xam dara ci ñoo xam ne da nga naan dañ leen di wax mais doo ci am preuve. xam ne tey jii ay organe sax ngay wax mais ay nit yoo xam ne dañ daan toog ci média di wax di def chronique wala dara nga foog nit ñi dañuy waxee seen bopp wala ay conviction naka tey wax ji da am lu nekk ci ginnaaw dañ leen daan wax loo te wax yooyu ay convention yu ñu signal seen bopp la tey am na fi ay journaux yi agité démb Sandiogu mi ngi koy wax wax na dëgg ay journaux yoo xam ne bu ñu xëyee lépp luy yàq projet bi ci 100 jours ñu ngi koy wax lépp luy tilimal Ousmane Sonko ñu ngi koy wax loolu tax El Malick li mu ne day porter plainte ñoo ñu wax ni waa Njaayeen ñoo nekk ministre transport na ko def na ko def mu leer nañ porter leen plainte journal bi ko def mu wax fan la ko teg ay fen waruñu ko bàyyi mi bejjaaw ci réew mi ku la sosalul dëgg yóbbu ko ci yoon ñu lijjanti ko looloy dëgg sëriñ Goy Jóob bu dee la nga koy waxal du dëgg na dem ci yoon parce que nag ñetti walla ñeenti journal ñu fi ne bu nu xëyee déggoo ci dara rab ay fen jël ko ow ko def ko ndomba def ko téere takk ko heure bu nu xëyee di ko imposer les sénégalais te nekk wala fi dañ ne fu yow a yow a egg du man du man eggu fa te ñu bari ñu ngi leen di xeeb mais bu leen xeeb de journaux yooyu noonu lu leen xeeb te ñooñu ñëpp tey ji lu tax ñuy lappi lappi la daan dugg la nguuru Macky Sall daan dugal ci ñoom ak lañ doon dundee moo fi nekkatul maanaam nguuru Jomaay ak Sonko danoo ñëw mi ngi mel na xale bi feragul wala nangagul fer nga koy nampal ba ci yàgg nga rocci ween wa xalu xale boobu balaa muy miin ñàkk ween ak fer goog mu fer dina feebar. dina jooy di nga xalangu pour man looloo dal presse yi bari léegi nag sago moo fa nekkatul ñu jàpp ni nag war nañu jël loolu def ko ngànnaay jàkkarlu nguur gi heure bu ñu xëy di dóor ay bomb ñoom xam li ñu jàpp seen xel Sonko ak Jomaay munuñoo dékku lii mënuñoo dékku lii na côté le quotidien nooy dóor fii ma Madiambal L'Obs dóor fii Turbine dóor fii lii quotidien dóor fii ñoom léegi nan dóorandoo tur groupé taj taj taj léegi bu affaire yi dalee nguur gi dina mujj a sede ñoom loolu lañ gëm <laughs> ma wax la ko tey jii man dama nekk ci presse ba ma xam li xew nan dóor convention yu duggatul parce que nag ay millions ay milliards lañ daan jot fu ne ñu tibb fa dara nga xëy naan noonu journal bi lañ gën a jaay ci dëkk bi lañ gën a jaay wala lee déedéet demul noonu man ànd naa ci convention ànd naa ci ñu jox marché publicitaire entreprise de presse yi man ànd naa ci mais na ko teg ci yoon dans les de l'art warul nekk benn genre corruption warul nekk corruption mais convention yi on a l'impression que corruption la maanaam qui paie commande man mun naa gëm ñu ne le ministre El Malick Ndiaye wala Toussaint Manga de la LONASE def na ay convention pour ñu accompagner ko ci côté communication mais activité politique bu Toussaint Manga activité politique bu El Malick Ndiaye jotewul dara ak convention mais convention yi fi daan am mooy duñ wane dara ca ministère ma maanaam dañuy fexe ba ku saaga ministère bi ñu xëy tontul ko maanaam wala ñu tuumaal ministre ñu xëy tontu ko wala benn Cheikh Baara def chronique am ku mu laal benn journal xëy bind Cheikh Baara naka ne journal boobu convention baa ko wax loo du lu mu gëm du lu mu jàpp warul demee noonu convention yi dafa faral leer. jotewul dara ak politique activité ministre bi ak communication ministre bi ci domaine bi ñu ko denk lan koy accompagner mais du tee lu ministre bi def noonu la lu mu def ànd nañ ci mais loolu day tax sax ministre yi duñ jub transparence du am une bonne gouvernance du am parce que pour yéen ni tey danoo jël communication ministère bi këpp alal ju bari ci presse bi mais ministre boobu bu doon tibb alal réew mi di ko sàcc fu ne mu jëm ak moom kenn du ko wax kon yooyu yun war a xoolaat la seytuwaat ko xool ñi ko yeyoo ñu jox leen ko mais aussi mu bañ a doon corruption nekk daana les règles de l'art léegi nag ñooñu xam ne dañ laan daan jox xaalis boo xam ne baaxul xaalis boo xam ne ñoom yeyoowuñ ko ñooñu waroon a dem làqatu ji man bi ma gisee ma trois pom génn di ci wax ma dem na mais kii da waroon nëbbatu ji parce que avant mi wax sax ñu bari amoon nañ xii nii mii ni ci nii est-ce que wax ji am na est-ce que liste bi baax na wala ceci ou mais dañuy xëy rek sàgganu xëy rek sàgganu duñ ko tey looloo tax réew dañ koy yor ci transparence réew dañ koy yor ci bon gouvernance loolu muy rupture li pap li Toussaint def mooy comme li Pape Alé wax nit ñi bari déggwuñ ko nag ni Pape waxee mais lan fa fekk nañ ko génnee pour que nag les sénégalee xam la réalité parce que bu demoon ba sàcc yi sàcc alal réew mi tey ji waroon a dem làqutu ji ñoom ñoo am fitu ñëw jàkkaarlook sénégalais yi di leen porter plainte foofu laa ñëwee ci Mimi Touré ak euh, Mansour fay ak Madiambal ak Dame ma jambal li ñu ko tudd ci mbirum suuf ma jambal maanaam ab rideau la néeg booy dugg rek di nga ko fekk ci bunt ba amul lu ñuy tudd ci réew mi te du nga ko ci tudd moo dem laqatu am fitu courage lu ko neex bind ci nguur gi lu ko neex manipuler nekkal fi le président de la république Macky Sall tey jii dafa waroon a fekk muy dem di ñaanlu ji ñaanlu ji pour lu fay coow mais Madiambal mooy yëngal coow dinaa dikk ci ci kanam lu tax ñoom ñi porte plainte gars yi treize def na ko fi Cheikh baara ma jambal ak euh, Damboj euh, kii waay Aminata Touré ak Mansour Faye maa ngi dégg Cheikh Ousmane Touré mu ne dañ ko def pour napp nit ñi non napp ñu kenn ndax kenn ragalu leen la peur a changé de camp bu ragal di am ñoom ñoo war a ragal lu tax man ma leen di ragal man damaa yor deniers publics man damaa yor alal réew man damaa amal kenn dara léegi ñun ñu war leen ragal quoi ñoom ñu yoroon suñu alal war ñu wax fii la dugg tànk bi fii la jaar fii la jaar fii la jaar ñoom ragalu ñun ñuy ragal du leen ragal lu nu war a wax ci ñoom danga koy wax du leen saaga nag du leen xas mais man lu ma mënta nangu mooy Mansour fay bu ñu koy tudd tudduñu ko parce que mooy sœur Marème fay mooy goro Macky Sall maasur fay dañ koy tudd parce que benn jamono lépp loo xam ne réew mi. di ministère te am doole rek dañ ko ko dénkoon Mansour Faye Mimi la yëpp Mansour fay Aliou Sall gorom toog na fii wax ci Mansour fay RFM ak Babacar Fall la la wax Mansour réseau hydraulique rural ak contrat yan fa am tey ji moo indi coowal ndox yi am ci dëkk kaw yi maanaam tuumaal ko joxoñ ko contrat wu siège ak SDE ba ci seen oni ñu tudd ko ci nga ñëw ci mbiri Covid bi nga ñëw ci les cinq sept cent cinquante milliards des inondations ak yeneen yu ñu gis fi doomam yar fi lu ëpp ñaar fukki million di ko doxantoo ci réew mi Mansour fay bu ñu koy tudd da kaa war a tudd parce man lu ma nangul ci Sénégal nit di ministre nekk ab ministre. ñu dénk la mbir li nga yor nga yor ko au nom du peuple maanaam yow yoroo li nga moom suñu alal nga yor mais un Mimi Touré wala une Mimi Touré war na mën a génn laaj loolu na lañ ko yoroon ak ŋàbbin wi nan la deme woon li muy tudd moom Mimi Touré mais assemblée nationale bi saisir nañ ci El Hadj Mansour mi maanaam dafa jaadu ñun li ñu may doole yi ñu may suñu nguur yi moo bari kenn du tudd ministre kenn du tudd magistrat kenn du tudd président kenn du tudd lii maanaam loolu est-ce nekkul ni mooy dem ba lu la neex def parce que un ministre bu ñu denk suñu alal dénk leen comme li ma tudd ni Mansour Faye yooyu yëpp loxoom mi ngi ci mais jaadu na ku mel ne un acteur politique dans le débat politique di Mimi Touré mu saytu ko un Madiambal Diagne ab simple journal Le Quotidien bi ñu jaay cent francs ñu xam ne bu ci yemoon rek du am dara Madiambal mën a am suuf mën a am lii mën a am lii ñu ne benn dàmbu du ko wax benn Thérèse Faye trois mois la nekk ministre cas de tout petit la fi jiite woon ak FONGIP ñu xëy ñu ne am na lii am na lii du waruñu ko wax fekkuñu quelqu'un ku nekk ci privé bi koo xam ne privé la ne xam na tey ji Babacar Ngom Sedima kenn du lijjant lu mu am parce que da ko ñafe ak lu mu mën a toll dañ ko koy yéene mais duñ ci posé wu question nañ la ko amee fee la jaar fee la parce alal privé la nekk mais yow da ñëw ci gestion dañuy publique loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu dénkalu ko ay at 12 ans te te Jomaay wax na ko. Diomaye nee na xaalis inondation exécution bi 12 pour cent 13 pour cent la ana beneen xaalis bi léegi-léegi loolu ñu yóbbu ko procès en diffamation léegi nag procès en diffamation boobu lu baax la <laughs> parce que nag lu tax ñoom Mansour Faye yi di def erreur di juum loolu da des fois ma ni est-ce que am nañu xel xam na ñoom dañuy nappe mais des nañu muus bu ne procès en diffamation bu doon ñoom seen nguur di nga dossier bi du mës a dem tribunal billaay bu doon Macky moo fi nekk du mës dem tribunal par Macky képp ku mës a fal faratu moom loo def dagan la loo def jaadu na mais la fait que ñu yóbbu ko procès lu baax la xamul ndax day tax ëllëg ñoom bul parce que ñoom bi ñuy porte plainte gars yi ñoom gëmul Mansour Faye mi gëmul woon ni dañuy woo dañuy woo Mimi Touré de Mansour Faye gëmul woon ni dañuy woo Mimi Touré moom dafa jàppoon ni comme Mimi mi ngi ci coalition Diomaye rek le règne de l'impunité ñoom bi ñu tàmm mooy kon ne di am day tax ëllëg buñ ko wooyee moom parce que moom bari na ay dossier mu ne pour pourtant porté naa fi plainte Mimi Touré te kenn woowu loolu tax ñu porté loolu lañ ci jublu woon ay ma jëmbal loolu lañ ci jublu woon parce que dañuy xam ne ñoom seen tour mi ngi ñëw di leen woo ñoom ñoom xam nañ ko mais le fekk ñu dooree ko nii day baax loolu tax li yoon def baax na parce que ëllëg day tax ñu ne bi a ah fay Faye tey de di nga wujje parce que Mansour of nag woon na ko fi mu bañ Moustapha Diop Cour des comptes mu bañ Cheikh Omar ann mii am ñëpp léegi nag ñoom comme ñi ngi ñoom ñi ñu waroon a topp ay sàcc di leen yuuxu ñoom ñooy yuuxu léegi sàcc di topp nit ñi yoon na ah sénégalais yi dañoo yem justice bi ñëpp a ko bokk la justice elle est générale et impersonnelle Mansour Faye porté nga plainte Mimi Touré Dame Mbodj porté la plainte ah yoon de dafa maandu lii de mooy wane ni jomaay dugalu ci loxoom Sonko dugalu ci loxoom léegi nan dem diffamation léegi Mansour Faye ëllëg bu loo wooyee yow da woy ji de bul ne kenn bu kenn du politique parce que bu doon politique dañuy politiquer mbiri Mimi dañuy politique mbiri Dame Mbodj dañuy politique mbiri Cheikh Bara mais du politique léegi woon nan la yow beneen yoon après léegi léegi yow porté nga plainte léegi yow bu la plainte wala ab rapport génn tudd la da ngay wuy ji far force ñoom danoo tombé dans leur propre piège bu loolu rek lañ ci jublu léegi lii lépp nag buñ ko mënee dafa fekk ni nag yenn saay nguur gi mooy may tànk des fois ma ni waa Pastef mën nañu bëree loolu waaye mbërum faas la xam mbërum faas dama mën a bëree mais de balaa ñoo bëree dañ lay wan ginnaaw nga jekku leen ñuy commencé bëree mais heureusement ñu ngi koy commencé comprendre parce que am na ci ay débat yoo xam ne jaru woon sax nit ñi di si sori parce que des fois ñu dugal leen dans la diversion ay saagu jabaru président beeg man bëgguma président bu ñuy yërëm nay yëg avion jabar ji nay yor saag bi jar million même bu dee ni gaari yi kàcc pourquoi jabar ji war a di dund misérabilisme man ne bu ma yoroon ay million dinaa mel ni million <laughs> sama soxna dina mel ni million loolu loolay àddina na fekk na lew rek na lew loolu rek la mais am na débat yoo xam dans les réseaux sociaux c'est juste de la diversion du dara léegi nag mbiri Ahmed Suzanne Camara ci lay daanele Suzanne dama dégg benn rajo tey ñu xëy neneen dañuy vaar Ousmane Sonko neneen parce que tey ji daan naan ku saaga waaye Ousmane Sonko waxoon na fi lii Macky Sall jomaay bindoon na fi colo colossardisation de la justice lii ak lii dama ne leen ci jamonoy Macky Sall reetaan sax dalaan dugal nit kaso nit dem na fi invité na nit tàkku sow nee na dafa demoon moom di porte plainte nit ñu téye ko parce que danoo gis ci portable am Ousmane Sonko mille jeunes ci kaso bi xam na de boo déggee ñoom ñuy wax day mel ne médias yi ànd nguur nguuru Macky sàll gi tey te nekk fi tey li may wax na ab rajoo ko def day mel ne bi fi Macky di nekk lu waay def normaloon na kenn jàppul kenn kan li mais Mamadou Seck yóbbu na mille jeunes kaso procureur bii xoolal xëy na fi di dem victime du net procureur bii di jàppaate tey xëy na fi di dem victime du net jël ay vidéo Ousmane Sonko dagg ko coppe El Hadj dem ca Pape Ngagne <laughs> jël jël vidéo yi teg naan déggulul ci jamonoy Macky Sall lu waaye mës def bu dee normal wala normal dañ lay jàpp parce que dañ la bëggoon a jàpp kon impunité amu fa woon. loolu nag moo tax tey amet Ahmed Suzanne Camara bu ko nit ñi jàppee ñu naan non Sonko daan na daan na wax lii kenn lii Sonko kenn baalu ko dara Sonko li mu daj kenn daju ko ay militant bi li mu daj kenn daju ko daan na leen jàpp nan leen daan jàppee nag noonu lañ jàppee Suzanne ab sànn woo xam ne boo ko sànnee day dellu soit xoolu xooxu buy wala siddem doy na ci léegi nag est-ce que jar naa jàpp est-ce jàpp mais ñi manipuler naan ci jamonoy Macky Sall sonk waxoon na lii kii waxoon na lii kii waxoon na lii ñi ko waxoon yépp wala ñu jàpp ni wax na ko dan lañ jàppoon nan lañ jàppoon lañ jàppee Suzanne mi nan lañ jàppee Bah Diakhaté il ne faut pas travestir l'histoire dañu jàppee ay fàttekat des gens yoo xam ne ils n'ont rien compris liñ jàpp ci nit ci nguru Macky Sall kenn xamul nu toll nguuru Jomaay ak Sonko bu ñu doon ay jàppekat heure bii mille cent personnes ñi ngi ci kaso bi ndaxte defkat yi ci nguru Macky Sall lañ ëppee defkat yi ci nguuru Macky Sall lañ ëppee kon jàpp gi jàpp Ahmed Suzane du événement léegi nag buñ ko waree baal wala ñu war ko li yooyu beneen mbir la mais li waa Pastef daj kenn du ko daj du jomaay moo porte plainte wala Sonko procureur moo def autosaisine mais procureur aussi tamit ci réforme yi ñi ñuy def ci justice nañ xoolaat procureur amat Suzane mii xëy na fi na naan rey Sonko procureur bii Abdou Karim Diop fu mu nekkoon anam bi muy wax ci mbir mbiri Didier ci ak Fulbert Sambou anam procureur te la mu looloo gënoon a ñaaw woowu ko looloo la gënoon a ñaaw woowu ko loolu tax le travail du procureur man moo may def problème du ay sous-an loolu procureur moom réforme bi ñu war a def ci justice taxawaayam juge des libertés boobu ñu wax nañ ko dugal ñu xool quoi waaw ah, parce que mais pour li <laughs> sosaan yàgg na def toj toj quoi ci Macky Sall mais procureur boobu ana moom pour mais pour moins que ça tey jàpp nañ ko alors que c'est le même procureur liggéey boo gis moral da ci baax aussi moral da ci baax benn jamono mais Suzanne li mu def kenn àndu ci il doit être arrêté arrêté nañ ko léegi lan fan lay mujj qu'est-ce qui se passe parce que ñun aussi dañoo ëppal boo ko bàyyoon mu dem day mujj waa APR yëpp gën di saaga Diomaye ak Sonko def ko way kon mu ngi noonu mbir mi jeex na bu dee ci nomination yi benn message rek lay lancé magi Pastef yi nan leen nome dinaa ci dikkaat sama beneen yi Pastef damay gis ñu nommé rek bu bu bu nee conseiller ñu ne na ku am xam-xam ku am diplôme mais bari na ñu nekk ci Pastef amuñu diplôme yan woon xeex bi seen xel rafet loolu du ma tudd tur ay punkal ñoo xam ne ay ndaanaan lañu ci xel ñooñu na leen di nommé ay conseil ñoo ñoo gën a jege askan wi ñoo gën a miin askan wi mais bu buñ am complexe bu buñ jël lépp wékk ko ci am njàng njàng lenn la mais am na loo xam ne leneen la waaw loolu tax dans nomination nominations buñ ko jël rek def affaire tubaab diw am na master diw am na lii am na lii mais am na ñu mën a jariñ réew mi te amuñu benn lijaasa wala ñu jàngee ci école arabe bi wala jàng alxuraan ba mokkal ko ragal yàlla loolu na leen di bàyyi xel ak mag yi passé fii la sagesse mag buur la te mag jàmbaar la tey bari na luñ dox ci projet bi loolu yóbbante loon bi mu doon doxal gars yi pour que ñu gën di ci bàyyi xel parce que da ngay dégg nomination on a l'impression que ay jeunes rek ñoo mën a tabax réew mi te ma jeexal ab Ablaye dafa am kilifa gëlam doon mu ne ndaje moo dem fekk fa ay gone rek tiital ñu ni ko lu tax mu ne ndaje day am ñett day am mag am ndaw mais am ay jigéen ndaxte ku ne day am qualité ku ne daa am lu muy mën di def te keneen ku du ko mën loolu nag mag ñi ci leen waaw mag ñi ci leen surtout à Kër Massar mag yi Kër masaar yi am na ji benn jamono ñoom rek ñoo fa des bu leen fàtte. kon di gërëm baax jàlloo moo Diallo Modou fa ak euh, Abdou Toob ak Fallou di jégalu ñëpp ñun tudd seen tour nag ci waxtaan wi jubluwuñ ci tooñ kenn waaye nag ku tëggoon ni tamañu bindoon itam ñu tëggale ñaari buur ñaari boor mbokk yi kon jërë ngeen jëf ba beneen alxamis incha allah.